di Leewtoo gars yi ngeen bàyyi seen xel fii ah Papa Sow l'attaque qu'il doit faire il annonce des choses fin direct bahan ah. mbokk téléspectateurs yi gis ngeen ne Papa Sow dafa mépp ki nga xamante ne moom mooy euh, tonnerre maanaam feinte ah feinte nag boo ko déggee très souvent dinañ ne non feinte mooy mooy nii wala mooy nii non coup boo def nii sax feinte la day tax sa tu travailles la vigilance reflexe waa ji mu raf mu daw ne coppe tànk bi ba tey rek tonnerre nekkul ko raf tamit ah accepté na nangu na parce que mbër moom bu dee bu ñu laagee fa sori nga tiit rek se jël dina bari foog ñu àggal foo xam ne dañ naan da ngay daanu nga lijjanti bu génn ci. da nga ne loolu tonnerre mi Papa Sow song na tànk bi vraiment parfaitement jël na ñaari loxo yëpp yebal ko ci tànk ndeyjooru ki nga xamante ne mooy tonnerre mais tout de lu muy def. Tonnerre quand même ah gars yi nag nga xam seen mën a bëre mbaa seen ndaanaan da ngay gis xool Tonnerre bàyyi na ko tànk ba def ko mbootum tàggalikoo lii mooy mbootum tàggalikoo mais tout de suite mbootum tàggalikoo bi mu amee tout de suite mbootum tàggalikoo bi mu séparé wu Papa Sow daf ko bàyyi côté bu mu nekkoon Papa Sow mi ngi woon ci côté ndeyjooru ki nga xamante ne mooy Tonnerre Papa Sow daf ko bàyyi ñëw ci côté càmmoñ bi xoolal lii ngeen gis na fii Papa Sow bopp bi mu ngi koy jëm dugal ci poxotaan fii nag réaction Tonnerre mooy réaction bu extraordinaire def nanguwul bopp bi dugg ci pokotaan yi ngeen fàttali ko jamono yi ci passé benn émission ñaar ñetti émission gis ngeen ne mbër yu bu ñuy daan ci pokotaan la ñuy jaar pokotaan mooy dangereux ci bëtt nit pokotaan daan ko rek mu ci war topp Papa Sow dugal bopp bi Tonnerre bloqué na ko fii gis ngeen téye bërëg bi Papa Sow bëgg a bu mu bopp bi mu bañ Papa Sow fii nag day gis ne am na ñetti ndoxtu Tonnerre am benn ndoxtu ñetti ndoxtu yi mooy lan Papa Sow na pooju mu ñu kii nga xamante ne moom mooy Tonnerre ba pare téye na loxo càmmuñam moom moom Papa Sow ma nga ca ngem bu Tonnerre beneen côté ba maanaam saisi yi ci ginnaaw saisi tànk bopp di dugg na waaye léegi mu des lan bopp bi dugg Tonnerre bañ na ko lu tax Tonnerre bañ ko mooy Tonnerre ndejoor la soo ko jaaree fii mën na kontaan mën na nangu mën naa bëri waaye subaana ma nag nga fekk mbër muy bëree tànku càmmuñ nga jaar ko tànku ndejoor mbër yu bari yuuxu nañ ci combat wéy sama ah! yuuxu saalit parce que may leen ci côté boo xamante ne dañoo war a daanu man sama jëm bopp ji musuma caaxaan ku ma jaar côté càmmuñ soo ma jaar dama sax jéem a jën toog rek mu jeex benn yoon <laughs> parce que ma ki dara dama cee làgg mënu ma ki ñaari salaamaaleykum te pourtant nag tàggat nañ ma ci ba sonn del bëri côté càmmuñ del bëri côté càmmuñ mënu ma ci lenn dara ma ki dara dara dara dara bi rek la fii moom foofu ñëw moom ñun ñaar bisimilah rahmaan rahim waaye fii moom loo ma ki daan tànn nag fii yuuxu na ba stade bi riir xool rey na boppam fii ndax fu ñu ko féetee mënewu fa côté càmmoñ nañ ko jaar te moom muy ndejoor te ñu jaaxal ko ndejoor mu bañ jaar ko càmmoñ loolu dafay prouver aussi euh, que Papa Sow day bëree ci côté gauche que Papa Sow day bëree ci côté droite dafa dafa raar nag bëri ci ñaari côté lu raar la ci mbër bët na ko ci côté càmmoñ bañ bët ko ci côté ndejoor mm-hmm. xool ma lii léegi nag mu am fii lu rëy luy xew xool Tonnerre xool Tonnerre téye ñoo ko Papa Sow kal ko Papa Sow bañ xool loxo Papa Tonnerre bi nga xamante ne loxo bi nga xamante ne moom la Papa Sow war moom la Tonnerre te éliminé ko Papa Sow xataraayu na fi ba tey mais loxo ba rëccul léegi pour loxo bi rëcc lan la Papa Sow pour loxo bi rëcc loolu ngeen war xool fii aha il va jouer Papa bañ na ma ngay bañ xool ba loxo bi téye nañ ko lànk na Tonnerre nanguwul xool Papa Sow lan moo koy génne ci action bi léegi aha bàyyi par ñoom ñaar nag ñu dem naani mbokk te spectateurs yi fii de man lu tax sax at bi joxul yële jaxal na ma gars yi. Mhm. dafa mel ni fii kuy connaisseur da nga gis ne Papa Sow moo nekk ci kaw Siteu mu nekk ci suuf astafurlah. amiin euh, Tonnerre mu nekk ci suuf. amiin ou sax su mu naam Papa Sow nekk ci suuf Siteu nekk ci kaw muy muy muy muy noonu. gis na kon quatre appuis <laughs> am na fii. mais combat bi continuer <laughs> tëf xoolal ma naan nañ ndox na ñoom ñaar mbokk téléspectateur naan nañ ndox ñu jóg Papa Sow di réclamer di wane ay loxo ne gën quatre appuis tonnerre dóor kurpañ mu daw ne coppet nag moom mu ñëwati sonko dik suuf eh. mbokk téléspectateur gis ngeen ne bi quatre appuis amee u am am u amul ngeen gis na kon Papa Sow dafa taxaw di réclamer naan def na quatre appuis tonnerre dóor ko crochet mu ne jeexul daw na sur adversaire bi xool song bii ni mu rëyee Papa Sow presque mi ci suufa suufa suuf ca suufa suuf song nag bari na ay façon song am na ci ndigg song am na ci pooc song am na ci jeune mii kii song bii ca suufa suufa suuf la song nag lu mu gën a suufee gën a sonal borom loo mun a bëri bëri tànk bu ñu songee ba mu gën a suufe bu mu gën a suufee suuf rek nga gën a am problème pooj di nga résister umale di nga résister mais song suuf yi ci suuf hmm. foofu laqar ci génn ci la moo ca des ndax nawet na ci génn aha dara xewagul ba tey ñaar ngay bëri xool Papa Sow jaar na ko ca wetu pokotaanu ndajoor ba foto na mëne gis ngeen ñaari ñetti action jaar na pokotaanu ndajoor bu njëkk tonneer rëcc mu jaar càmmuñ tonneer rëcc Papa Sow ñu wat na jaar ci ndajoor ba léegi nag mu ngi wër dem di wëri ndomba ci ginnaaw passage en arrière xool fii lay jëm si ci ginnaaw pour adversaire bi mën daanu gañ na siiñ na lépp lu ma mën effort dam yëpp def na ko fii pour jàll ci ginnaaw jàll ci ginnaaw bi ne égal jàll ci ginnaaw woon ndomba ou égal jàll ci ginnaaw waa ngi daanu des fois sax bëri bi day préféré nangu ñu wër ma ndomba moo gën ma daanu ji parce que am na ne commencement ci bëtt pokataan booy séentu bu dem ci ginnaaw su waa ji lànkee moom day daanu ji bu nangoo nag day bàyyi ñu wër ko ndomba wër ma ndomba nag gars yi ne penalty la tax nangu ñu ko la di wër ndomba ñu xool li ki toppaat ginnaaw Papa Sow gagné gañ vraiment gañ carrément pour jàll ci ginnaaw Tonnerre mi ngi suuf ba tey xool ma xool bañ bañ aha ça continue demati nañ ci suuf ñoom ñaar fii nag moom ku nekk gis na ne Papa Sow fii la jël bi yem chute am na léegi nag ngeen suivre la réaction des arbitres ak la cay topp fii lu moo wax dama leen bàyyi ngeen suivre ko la cay topp Papa Sow sigg na nee na moo daan kurpeñ dal na ko benn taxaw na ne ko daan naal la arbitre teel encore aha léegi papa Sow jaaxaanal bii jaaxaan moom moo ko tey moom dëgg yàlla bii moom moo jaaxaan du ko neexee léegi papa Sow na mais est-ce que papa Sow entraîneur bi ñëw ko tëddal non arbitre bi arbitre yi ñëw nañu di intervenir bi jël amee bi ñu intervenir papa Sow di xam ne daan na taxaw di wax te ne dóor ko benn kur peñ arbitre yi xool fi ñu ngi attaqué ñu ngi wax ak Tonnerre ma yow lu tax ngay dóor daan nañ la lu tax nga koy ci diggante bi nag Papa Sow def na def na jaaxaan légèrement léegi jaaxaan légèrement boobu mooy mu ngi nii mu tëdd xool tëf benn groupe ah arbitre xool arbitre xaanool dal ci nga xam sax gis nga e eh, ayca ah waa ah, gars yi bii mu tudd waay <laughs> mbokki téléspectateurs yi ci action boobu nag la ki nga xamante ne mooy Papa Sow le piment de Jamba Academy daan ki nga xamante ne mooy tonnerre mu doon jël bu set wecc bu amul benn jërëjëf ah jërëjëf